bi ñu defee ab jéego euh, organisation bu ñu naan GEP maanaam société civile bi xayma nañu euh, ñaari weer yi nga xamante ni Sénégal toog na ko ci biir kër gi wane ni li mu jur moo di euh, grossesse précoce yi dafa gën a bëri xale yi ëmb yu teel yi bëri na lool ci période boo nga xamante ni am nekk nañu semi confinement ci kër gi mu di jet mais euh, Nations Unies aussi xayma woon na ni dina am pandémie bi conséquences yi mu tëju bi ñu tëj njaboot gi ci biir kër gi dina am ay risques yu baree baree bari ci ay millions wu jigéen mais dina am ay risques yu baree baree bari yoo nga xamante ni ëmb loo ëmb la yoo xamante ni du yu ñu gënal yoo nga xamante ni yu ñu planifié la alors ci wàllu financement bi maanaam koom-koom bi nga xamante ni mooy téye wërgu yaramu njur mi li ñu ci gis moo di euh, bi pandémie bi ñëwee gouvernement yépp kenn ku ci nekk dafa tal leneen lu dul toppatoo wërgu yaramu njur ak planification familiale et loolu du Sénégal rek àdduna bi yépp ñoo réorienté ressources yi ci xeexu pandémie bi bàyyi affaire santé de la reproduction mu doon risque bu rëy rëy rëy rëy ñu am njàqare gu rëy rëy rëy ci wërgu yaramu ndaw ñi ak njurum doom bi ak ndeetalu njur mi ndaxte suñu continuer noonu defe naa ne ak e, Covid bi nga xamante ni xamuñu fan lay yem mën nañu wax ne effort yi nga xam ne defoon nañu ko Sénégal defoon nañu ko ci mbiru population et développement yëpp capture du dividende démographique yëpp dafay seey alors ci loolu nag lañu ñu ne devons faire des recommandations pour que l'État d'abord dégg première recommandation pour l'État bi dégg c'est au moins nous garantir l'accès à l'information et aux services euh, de santé sexuelle et reproductive il faut aussi que nous am la euh, euh, violence basée sur les gens. c'est du domaine de l'État le ministère de la femme de la famille il faut que ñu toppatoo euh, xool naka la ñuy saytoo gëstu pour endiguer prévenir violence basée sur le genre ci réew mi ci askan wi ci gox-gox yi ak ruq yi et loolu dafa doon loo nga xamante c'est une nécessité pour que le ministère euh, de la famille tekki loxoom ñuy saytu askan wi ci ni ñuy dundee pour éventuellement euh, endiguer li nga xamante ni violence basée sur le genre donateurs yi manam ñi nga xamanteni ñoy dimbali Sénégal ñoy joxé alal ji aussi am nañu un devoir de renforcement du financement à la SR alors pour le secteur privé gaay nga xamanteni ni nek ci ñun té yor alal ji euh, euh, il faut que ñu euh, jël sen responsabilité sociétale d'entreprise parce que gox yi ñu nekk di saytu alal ji maanaam Sabodala ak euh, Kédougou ñu exploitation wu or ñu ngi jëm ci pétrole bi mais alal jooju ñuy saytu ñu delloo askan wi wàllam pour que ñu def ko ci santé bi ñu mën toppatoo mbiru euh, euh, santé askan wi. alors ñun société civile bi li ci suñu warugar moo di wax moo di instaurer la dialogue et c'est ce qu'on tous les jours. conférence de presse mais tous les jours depuis presque 25 ans depuis la plateforme de Beijing depuis notre engagement nous les leaders depuis euh, vraiment l'université jusqu'à présent c'est ce que nous faisons mais du doy nous devons instaurer un dialogue permanent un dialogue ouvert avec les partenaires pour que la planification familiale, la santé de la reproduction dans sa globalité puisse être prise en charge. Le donateur et les entreprises doivent devoir mobiliser les ressources Nous avons le devoir de pour que nous ñi xam waaye fondamentalement famille a une responsabilité. responsabilité. famille a une responsabilité surtout ci moment bi nga xamante moment au Covid la waxtaan ak E loolu yaay yi ak baay ak bàjjen yi ak tante yi ak mag yi ci biir famille bi war na noo mën a fexe waxtaan ak xale yi instauré climat boo xam ne xale yi dinañ leen ñeme ba mën leen a poser question ci seen yaram ak seen seen euh, wërgu yaramu njur ak seen wërgu yaram globalement di waxtaan ak ñoom ci seen avenir ak ci seen nekkinu jamono pour que ñu éviter ñu mën a euh, mën leen a wax loo nga xamante ni suñu ko déggee ëllëg. dinañu évité dugg ci loo nga xamante ni dina gàllankoor seen wér seen wér gu yaramu njur et en fin de compte seen njàng ak seen avenir